troisième mandat dixième mandat dama troisième mandat bu baaxee ci réew mi na ko président de la république def te nag débat politique bi fii la mën a toll c'est et c'est dommage c'est bi fii la nekk léegi ay liste la ay suppléant la ay parité dugal naa góor génne naa jigéen damay dem élection non dama damaa bëgg a falu damaa bëgg a nekk député way deuxième mandat troisième mandat quatrième mandat waxi ñàkk fayda te kenn yóbbuwuñu si lu dul ñi nga xamante ni danoo bëgg a falu le débat est devenu stérile et malheureusement nous autres on est obligé de répondre parce que c'est un terrain boo xamante ni foofu la ñu woo te duñ leen ko bàyyi parce que am na une partie des sénégalais ils sont friands de ces débats puérils il faut ñuy tontu li may dox naan xale bu la tooñee léeg-léeg da ngay wàcc ba ci niveau am duma ko yéegaat doo leen dégg mukk fii ci réew mi ñoom ñëpp laa wax opposition ak tonton. doo leen ko dégg mukk mu waxati waxi réalisation parce que xam nañ réalisation Sénégal kenn dootu ko waxati fii débat boobu kenn ñemeetu ko wax moo tax yeneen la ñuy wax ay troisième mandat dixième mandat dama ni troisième mandat bu baaxee ci réew mi na ko président de la république def il est hors question il sera hors question de laisser ce pays-là entre les mains de ce monsieur loolu du loolu yàlla rek moo xam yàlla rek moo xam waaye ñun lépp lu mu laaj lépp lu mu laaj pour lui barrer la la route ne serait-ce pour une pure et simple raison mooy ni du sénégalais bukki la bu sàngoo deru bëy dunu nangu fii ku dul sénégalais di jël réew mi Sénégal un fractionniste un rebelle qui ne s'assume du ko jiite kooku na leer ci boppam et on paiera le prix qu'il pour sa ñun Sénégal moo ñu gën moom lañ gën a bëgg lépp fu ñu dem dañuy ñibbisi li ñu am ñëpp Sénégal moo ñu ko jox du ñu nangu mukk kenn di ko yàq di vandager Sénégal mooy nañu nekk ñun ñëpp ay sentinelle de la république wan waxuma ay APR ak benn Bokk Yaakaar république moo soxla tey senegal moo soxla ñu war a taxaw ñun ñëpp tem ngir waa yi ak gaañ yi doon ay bukki sàngoo deru béy bañ fi am dara élection législative na ñëpp taxaw bay seen wewu tànk ngir jox président de la république majorité mu continuer liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def Sénégal ndax loolu mooy dëgg ndax leneen bu amee ñi muy arrangé mooy ñi nga xamante ne dañ bëgg a indi mbiicoog malloo ak kaw ak jaxasoo ci réew mi loolu moo leen tax jóg loolu lañ bëgg tonton moom li ko tax jóg mooy dëkk bi jaxasoo ba dossier tribunal ba réer moom loolu rek moo ko ñor donc élection yii occasion la ça n'a rien à ay troisième mandat quatrième mandat élection législative la fii la taxaw ne élection locale yi boo leen votelee Macky Sall day dem troisième mandat mais Macky Sall moo ëppale ay voix moo ëppale ay localité APR Benno Bokk Yaakaar est-ce que tax na pour autant président ne damay def troisième mandat donc boo taxawee ne bu ñu amee majorité troisième euh, assemblée nationale waxi troisième mandat la waxoo dëgg ndax waxoon nga ko fi yow loo wax du dëgg loo wax du dëgg un vrai lâche waaye nag mooy li may faral di wax rek kéwal du tëb doom jëbbat nañu taxaw taxawal Sénégal man Sénégal moo ma ñor man du du sama engagement ci li xew ci réew mi sama responsabilité la personnel réew mi kenn ëppalewu ma fi bokk maag ñi nga xamante ni dañuy raas i rase les murs ñi nga xamante dañoo tekki ci dërë bi dëkk dara ci dëkk bi président de la république jox leen ça me ferme ça me permet de faire le lien président de la république jox leen ay responsabilités ñu koy attaqué ñuy attaqué réew mi ñu nekk ministre nekk ay directeurs généraux nekk ay directeurs nekk ay députés nekk lu ne ci réew mi mu jox leen lu ne état bi jox leen lu ne. ñu war a défendre état bi ñu ni miig noppi sama sama xaritu Benno Bokk Yaakaar yeeg APR lay waxal ma ne ku dugg ku mag mooy yëngal dëxit te ñu si bëri ci ñun Macky Sall jox la leen kudd yëngal leen loolu mooy wàllu gor rikk gaa yi nanu gore rikk gaa yi Macky Sall bum ñu gën a gore ndax moom moomul réew mi dafay liggéeyal réew mi dafay défendre réew mi te xeex boobu buñ ko ci bàyyi bum ci wéet ñun ñoo war a taxaw taxawaay boo xamante ni moom bu ëpp taxawaayam lay doon man mii ci loolu laa ne képp koo xamante ni leer na ma ni tu es un de la république et de l' état du Sénégal wallahi al boo tegee téeméeri bakkan man dinaa teg dix mille bakkan te duma la may dara parce que li ma wóor man man li ma wóor li ma wóor mooy ku mel ni Ousmane Sonko le combattre c' un devoir civique la le combattre en plus d' être un droit c' un devoir parce que c'est un ennemi de la République c'est un menteur tartuffe anti-républicain il faut le combattre par tous les moyens je dis bien par tous les moyens je me répète tous les moyens dégg naa démb ñëw na géejawaay mais dafa làqatu waaw dégg naa démb ñëw na géejawaay mais dafa làqatu démb dégg naa ñëw na fii dafa làqatu yor fordam bu ñuul boobu yow daal booy ñëw géejawaay nañ ko yëg nañ ko yëg ñu teeru la ci démocratie lañ nekk dëkku liberté lañ nekk lay teeru te yaay borom ah. comme que nee nañ yaay président président de la république bu ñëw koy teeru. booy ñëw nañ ko xam jarul làqatu bii donc mbokk yi wax ji lii rek la woon. nañu gën a taxaw réew mi nañu gën a saytu réew mi ndax ñun réew mi rek ñu ñor ak képp ku ñu àndal li fi xew démb mu doon une reculade nañ ko wax sàqi taw. comme des lâches détalés comme des lapins loolu moo am démb